woote sëñ Touba parce que ñëpp yoreel nañ loolu sëriñ Touba li mu defal nit ku ñuul li mu defal Afrique li mu defal Sénégal li mu defal àddina bi yëpp su wootee pour ñu sant yàlla ci ci daanaka li ko yàlla teg ci jafe-jafe waaw loolu du kéemaan la kom comme yaakaar naa ne lu luy sëriñ Touba rek lu muy def rek inspiration la ñëpp ci war a xool jàng ci jéem a def lu lim santaane Eh, bés boobu mu woote nag ku ne li nga ci mun ak fi nga ak na nga ko mune war nga cee dugal sa loxo war nga cee taxaw loolu mooy loolu mooy tànk yi moo loxo ñu ñëw fii tey eh, ziare si eh, sëñ bu mag a mag bi sëñ Mountakha dem ziare sëñ Moussa Nawel dem ziare sëñ bas Abdou xaadr ñoom ñëpp dem ziare sëñ Daan sëñ Sidi Abdoulaat ñoom ñëpp ñu ziare leen mujjee ji kër Soxna Bali at mu jot noonu lañ koy defee yàlla ñu yàlla may at yi ñëw